gars yi il faut ñu moytandiku Macky Sall ak euh, pexe yu bees yi nga xam ne moom la indi tey euh, je pense que ñun ñëpp bu ñu bàyyee xel c'était le même Macky moo ne woon wàññi na mandat yi ba cinq ans ba mu wàññee mandat bi ba cinq ans moom force na ba def fi sept ans ce même Macky Sall ba mu ñëwaatee élection deux mille dix-neuf bi fi mu jaar ak ñun gis nañ ko. tey gis naa mu tweeté ne waaw moom day dem le deux c'est décidé waaye dafa mel ni ngay ne euh, nappkat bi ah vraiment géej gi am na ndox parce que ñun Macky ñun amuñu benn doute ci sa demu le deux loolu yow rek yaa ci doon douter ndax le deux moom fekkoon na la ci réew mii jël nga suñu bakkan la wala ñu jël sa bakkan yow xam nga loolu le moom doonu la fekk ci réew mi ndax fépp aussi ci àdduna bi réew yi nga mën a daw ëllëg dem lakkatu ji yëpp dànkaafu nañ la nee nañ la nga tëgg élection balaa le deux te le bum la fa fekk waxoon nañ la loolu àdduna bi yëpp dégg Macky Sall vient aujourd'hui pour nous dire que dialogue des retraités Ahmed Khalifa Niass ma nga fa woon moom di jël ay numéro téléphone grand sëriñ de Dakar ñoom sol nañu seeni grand boobu kakataar ñoom ñëpp ñu ñëw à quelques-uns ñoom ñoo woon dajaloo nee na moom dialogue na ak ñoom ba mu pare génn ci dialogue bi euh, monsieur Jaljali capitaine Dieye génn di wax les gros mots il veut utiliser des gros mots dama bëgg ne déjà sénégalais yi ma ñëw ci capitaine Mamadou Dieye capitaine Dieye dama bëgg sénégalais yi ngeen déglu ma bu baax on est allé faire xam nga ñun nag ndeysaan yàlla dafa def saa bu coow amee rek dañuy dem xool coow li fan la sosoo capitaine Mamadou Dieye dafa déserté woon armée nationale bu Sénégal ñu tëj ko quelque temps bàyyi ko muy génn di fi taxu waxul de mu takk jaljaleem yi mu ne moom dafay nekk candidat présidentiel day politique waaye bëgg naa ngeen xam ne Moussa Fall moo nekk ci ginnaawam le général Moussa Fall l'a reçu elle a bien graissé pour muy wax ay mots yu rëy comme un ancien officier de l'armée comme saa bu génnee di wax yu rëy di jéem a harcelé xaw ma lañ ko tuddee xaw ma intimidé lañ ko tuddee xaw ma nuñ ko tuddee Mais le capitaine Mamadou Dieye, c'est quelqu'un qui n'est qui n'a pas de vergogne. parce que moom moom rek a comprendrewul moom mag Moussa Fall ba léegi na ñoom daanu nañu ginnaaw loolu ñuy waxaat Macky Sall jox ñu datu élection lañ la laaj datu élection képp ñun ñu sa dem ak sa bañ a dem ndax ñun xam nañu ne da ngay dem la 2 avril ñun xam nañu loolu mais du moment où conseiller constitutionnel ne Macky Sall tëggal ay élection balaa le 2 avril Macky Sall dafa ñukku élection yi di dem di ñu wax waxi dof ba mu paree mu ne moom concerté wu na ak ñi nga xam ne ñoom la doon dialoguel mooy gis ngeen maanaam comme je vous dis les grands serigne de Dakar et Ahmed Khalifa Niass Macky Sall ne concerté wu na la 2 juin la ñu jàpp Macky ñun bëgguñu dem élection le 2 juin te bëgguñu nga tegal ñu fi kenn ndax waxoon naa leen ko keroog boo leen demee dégluwaat vidéo Clédor Sène bi di ngeen am compréhension ci lu tax Macky Sall bëggul def passation de service ak Bassirou Diomaye fay parce que passation de service du may Macky Sall temps pour mu daw génn réew mi comme ni muy def d'habitude xam nga Macky Sall li muy li mu bëgg mooy daw génn réewu senegal génnee njabootam élection yi ñu tëgg ko ci ginnaawam lu ci xew baax na mais day fekk moom daw da bu fekkee ne sax président bu bees bi soxla na mu def déclaration de patrimoine walla soxla na ko jàpp day fekk moom génn na réew mi loolu la Macky Sall di carte nii parce li nekk ci passation de service bis bu joxantee loxo ak président Diomaye naturellement ne ko jàpp ci loxo félicitation kooku ne ko merci kooku da koy ne monsieur le président merci pour votre service pour notre nation après ginnaaw loolu nag da koy ne vraiment sa liggéey rafet na donc comme bi ngay ñëw da nga defoon déclaration de patrimoine donc soxla nañu nga defaat déclaration de patrimoine et aussi on na des question pour toi donc mënaguloo génn réew mi demal nga xaar fële ci ba ñu soxla la après ñu woo la bu ñu setalee lépp nag nga dem loolu mooy problème mu Macky Sall si son problème Macky Sall a décidé que il va faire le banditisme comme il la faisait toujours jéem a jéggal boppam jéem a jéggal ñëpp ñi mu àndal daw génn réew mi ba mu amee ay tànk balaa le balaa ñuy tëgg ay élection moom mu génn le 2 avril comme ça ñu tëgg ay élection ci ginnaawam lii mooy problème mag Sall voici son problème son seul et unique problème mooy fassul yéene nekk ci biir réew mi bu président bu bees di jël réew mi Parce que loolu c'est très risqué pour lui. Comme il risque la prison et il ne prend pas de chance loolu da koy fekk mu toog Maroc fenn en cas bu président bu bees bi jële ñu ne ko nii rek mu ne non non non ah du ma ñëw de déedéet waaw dañ ma mere gars yi dañ may accuser dañ ma bëgg a jaay doole dañ ma bëgg néewal doole maak sama famille jàpp ñu donc moo tax man génn naa réew mi te du ma ñëwaat. voici le problème de Macky Et je veux dire au Conseil constitutionnel du Sénégal, avec tout le respect qu'on vous doit, prenez vos décisions en main. ngeen jox ñu date d'élection ñu dem ci ay élection incha allah date d'élection lañ soxla parce que kat Sénégal état de droit la pourquoi laissons-nous un imbécile comme Macky nous manipuler de cette manière pour lan Sénégal état de droit la réewu yoon la pourquoi ñu war a bàyyi un mécréant un mécontent un assoiffé de pouvoir un misérable comme Macky Sall continue à nous manipuler yéen conseiller constitutionnel ngeen noppi ne pat makisal n'a pas de courage. Il n'assumera jamais. mais ngal la nag conseil constitutionnel jox leen ñu cër ngal la jox leen ñu cër ñun soxlawuñu maam Jóob xar buy nelaw benn dofeewu Macky Sall ñun soxlawuñu benn golo buy ñëw di ñu jéem a jiiteel réew te dañu bëgg a wax capitaine Touré euh, euh, Mamadou Dieye rek ne il faut mu xam ne on n'a pas peur lii ngay jéem le pouvoir euh, appartient à l'armée la l'armée nangam lu ne wax nga ko fi nga ne sénégalais yi bëggatuñoo dégg dara et tu une fois courageux assez courageux pour nga laaj sa bopp question boobu ne mais attends sénégalais yi lan moo leen war a merloo à ce point ba bëgguñoo dégg dara dama lay wax rek yow capitaine Dieye capitaine du Dieye capitaine Dialdiali yow lan moo la est-ce que mës nga jël cinq minutes de ton temps capitaine pour nga xalaat lan moo war a tax sénégalais yi nga ne bëggatuñu dégg dara lan moo war a tax bëggatuñoo dégg dara est-ce que yow mas ngaa jël sa temps cinq minutes nga an nga def boobu analyse saa bu Maimouna nduur jógee rek taalal la teleem bi doomu xaram boobu da may nuyu sénégalais yi de passage di massawaat yaayu victime yi li mu weddi ne moom waxu ko yor na vidéo bi dinaa ko teg àdduna bi yëpp dégg ko et la plainte sera nationale et internationale capitaine Dièye mu ne sénégalais yi bëggatuñoo dégg dara donc le pouvoir appartient à l'armée Moussa Fall moo ko yónni Moussa Fall moo ko jox mu lekk ba gatam gi fees illa a été payé muy pour muy wër ci télé yi rek di wax du n'importe quoi xam nga benn nit bu ànd ak sagom bu ànd ak Macky Sall ñemeetul génn ci télé yi di wax ay daf mais comme Macky la génn na menacé nañu Moussa Fall jël na capitaine Dièye mu graissé ko donc Macky Sall à tout prix il se prépare nee na à un coup d'état masqué et vous n'avez rien compris comprendre leen dara xam nga lu tax comprendre leen dara parce que au moins soo leen amoon tuuti xel am tuuti xam-xam war ngeen xam ne population sénégalaise bii ngeen neel faas muy Moussa Fall woo di Demba Combaan woo di Samba Kumba Jeng woo di Mapenda Joob woo koo leen jox réew mii te tegu leen ko ci yoon borom dina rëccu luñ ko doon joxe Sénégal moom mooy ëpp Macky ay problème on vous connaît yéen xamu leen ne yen rek yéen a xamul seen bopp waaye adduna bi xam nañu leen c'est capitaine Dièye ce diseur de gros mots foo ko fekk mi ngi oui c'est intellectuellement oui oh, oh, oh, oui vous savez oui oui l'armée oui l'armée nationale xamuloo sa bopp c'est que tu n'as pas compris yow arriviste nga et tu es xam nga ndeysaan Ousmane Sonko buy wax yéen ñu bari doo leen ko dégg dafa ne cette nouvelle population de sénégalais est décomplexée maanaam amatul kenn ci ñun ci nouvelle génération bii nga xam ne ñun ñoo nekk di xeex ak yéen bu complexé donte sax man bokkuma ci nouvelle génération man naa tuddee sax bopp ancienne génération ndax ku dem ba teg tegal juróom fukk yow man ngaa bokk ci beneen génération mais kan ngeen yàpp un capitaine Dièye qui se permet toujours bu sénégalais yi génnee trouver solution wax xoj Macky Sall mu génn il nous parle de coup d'état il nous parle de l'armée qui appartient au euh, euh, euh, le, le peuple appartenant à l'armée que le Sénégal c'est le pouvoir c'est l'armée oui c'est l'armée l'armée oui le mais du n'importe quoi capitaine est que yow xam nga ne Sénégal ay élection moo fi am depuis mille neuf cent soixante on a déjà eu une deux alternances au Sénégal Wade a renversé le pouvoir de Abdou Diouf et Macky Sall a renversé le pouvoir de Abdoulaye Wade et le pouvoir de Macky va être renversé dans quelques jours ñun on est décomplexé ñun amuñu problème mu complexe d'infériorité amuñu boobu problème vous vous êtes complexé ñun amuñu complexe c'est une population décomplexée ñun dañuy toog naan fonde ak président Amérique pare ci loolu dem lekk mburu ak président Japon pare ci loolu dem naani ataaya ak président Burkina Faso pare ci loolu ànd ak président Mali dem lekki dibi te du tee dañuy ñibbi ci suñu ay njaboot mel ni dara mas ta xew tu es complexé mon petit frère complexe moo la sonal yenn yi sax duñu bëgg mu mën a mën a mais je peux te dire que nous on est en contact avec les personnes les plus influentes de l'Afrique te pourtant changé wul suñu comportement musuloo fee gis ñuy ñëw di wax ay gros mots ñun ñi ñu am accès ci ñoom sax saan yow amuloo accès ci ñoom et nous on ne dit pas de gros mots dañuy ñëw ñu wax li nga xam ne moom lañu gëm bu ñu paree ci loolu ñu move on te Macky Sall moo la gën a xam loolu nous on a dîné avec ton président Macky Sall c'est quelqu'un que je connais très bien dama ne incha allahu lépp dina leer ci Sénégal bi mu neex leen dina leer mu naqari dina leer te lépp dina tegu yoon ci Sénégal bi mu neex leen dina tegu yoon mu naqari dina tegu yoon Macky Sall amatul plaas ci àdduna bi il n'est pas le bienvenu Macky Sall amul fenn fenn fenn fenn foo xam ne dinañ ko fa may place mu ne euh, euh, euh, mu ne mu ne mu ne mais aussi je pense qu'il est important de rassurer le président sortant pour la stabilité de ce pays attention j'attire votre attention sur ce point crucial Sunugal Sen xam nga loolu mooy lu suñu problème ak ñu bari ils nous disent toujours la même chose rassurez leen Macky Sall rassurez leen diw ma je vous dis que nous on n'est pas dans le problème de rassurement de quelqu'un ñun nekkuñu ci loolu ñun Macky Sall lenn rek la am lan teg moom mu tëggal ñu ay élection si il n'a rien fait il n'a rien à craindre si Macky Sall n'a rien fait il n'a rien à craindre mais Macky doit être un grand con qu'il sera sûr qu'après avoir assassiné des Sénégalais et, et, emprisonné des milliers de Sénégalais, que rien ne va se passer. Il sera traduit devant la justice. Maintenant, peut-être avec son pool d'avocats et son argent, et on peut dire ses, ses évidences, peut-être qu'il sera exonéré. Lolo Mandouma juge. Mais pour toog fii rassurer Macky Sall ne wala demal dara du la topp kenn du la wax dara non non non c'est pas vrai loolu mënta nekk non man Tounkara rek man mii rek man si Macky Sall quittait le Sénégal comme un citoyen lambda et mettre pied aux États-Unis je serai le premier à porter plainte contre lui et je vais le poursuivre du am jàmm man Tounkara rek parce que je fais partie de ces victimes ma petite famille fait partie de victimes de Macky Sall du lépp la ñuy wax nag du lépp la ñuy wax Macky Sall amul fenn fu muy dem ci àdduna bi di am jàmm bu génnee dem Europe du am jàmm bu génnee ñëw Amérique du am jàmm loolu man je dévoue ma vie Macky Sall cëpp Amérique damay dévouer sama vie ci topp Macky Sall ba mu sës ba mu sës non ça c'est le Sénégal il faut qu'on apprenne au prochain président du Sénégal que lépp lu fi nit def ci vas rendre compte maa bëggoon nga xam sunu Galsen maa bëggoon ñu jox réew mi jomaay walla ñu jox ko Sonko walla ñu jox ko keneen mu ñëw fii di layam layame naan wala du ñu def lii du ñu def lii lii la ñuy def réew mi ñoo ko moom ñuy def lu leen neex billahi seen punition mooy gën a grave bu Macky Sall parce que je me on s'est sacrifié fàtteel jeu parce que mana mana bi c'est pa jeu on s'est sacrifié la vie pour libérer ce pays on s'est sacrifié la vie On a sacrifié la vie de nos familles. On a sacrifié nos frères, nos sœurs, nos mamans. Il des familles détruites. Il y des personnes qui ne vont jamais revenir. Il y a des jeunes qui ont perdu la vie. Il y des jeunes qui sont blessés, qui ne peuvent jamais travailler dans leur vie. seen àdduna sànku nga bëgg ñun ñu toog fii di layam layame di rassurel Macky Sall di ko raayal bugguma sax yegg ci yooyu waaye les politiques ne doivent pas accepter il faut ñu xam dara politiciens sénégalais yi tey rek point de presse defe naa heure bii sax ñoom ñu ngi ci point de presse waru leen nangu benn yoon amnistie bi ngeen xam ne <coughs> moom la Macky Sall di foye nii malgré bu forcé moom na ko forcé passé ko avec ces députés automatiques kii seront tout traduits devant la justice gis nga loi d'amnistie bii képp ku ko passé jël leen sama kàddu take it from me ah képp ku passé loi nasti bi surtout Cheikh Abdou Bara Dolly yow sama waa ji maa ngi dégg temps yi sa làmmiñ bi rëy lool ci réseau yi gis naa fi sax nga wane Cadillac bu 2014 xaw ma 2013 Cadillac yooyu nga xam ne 2014 lañ ko arrêté defar wala 2017 pardonnez-moi 2000 2017 lañ ko arrêté defar nga ne boobu mooy Cadillac bu cri dernier cri bi bëgguma puukare dernier cri bi ci la toog nii du boobu nga wane de boobu du dernier cri waxuloo dëgg man xaw ma àdduna bi nu ci ni di génnee di wax loo xam ne du dëgg ba cagu ndar kam ñëpp di la xool et tu es confortable fexe leen ba loi bi assemblée nationale Macky Sall bu ñëwoon bëgg leen koo jàllale ngeen bañ ba tëdd ci suuf boo leen ko jàllale assemblée moom day tas ala kulli àllin fi ak juillet bu soobee yàlla président bu bees ñëw na rek assemblée day tas bu boobaa non seulement doo leen faluwaat waaye dañ leen di topp ci ay attekaay donc bu ma doon yéen ngeen génn ci bépp tappale boo leen nekk maam jaara femme ex mama de Ousmane Sonko maanaam rediimal li américaine ne redeem yourself maanaam defaraatal sa bopp yàq nga sa bopp te maam Ndiaye savon affaire am yooyu muy jaay arrangé wu la maam jaara femme ex maman de Ousmane Sonko delloo siwaatal sa bopp maire Woré Sarr retraité delloo siwaat leen seen xel te ngeen xam ne àdduna du kër te ngeen xam ne politique du ay deal xale yi pare nañu pour jëflante ak yen moytu leen seen bopp bu leen dugal seen bopp ci ay guuta Macky sàll mi ngi nii leeral na kàddoom nee na le 2 avril day génn réew mi day dem yéen la fi bàyyi ak seeni ay problème delloo siwaat leen seen xel àdduna du kër de parce que ëllëg ak si man bëgguma injustice bëgguma ku teg kenn injustice ëllëg ak si sibir bu ñu leen fi jàppee di leen traduire devant ay justice di leen topp bu leen yaakaar ne di ngeen fi mucc retraite bi ngeen doon xaar retraite bi mën naa nekk rëbës de wala camp pénal delloo siwaat leen seen xel Macky Sall bu mu dem sacrifier leen bu ñëwee loi d'amnistie ne leen ko Macky mu ne waaw mënuñoo passer loi d'amnistie dañuy bàyyi la justice faire son travail comme ni nga ko daan waxe bàyyi justice mu def liggéeyam boo leen fi jëlee ay loi dinaa leen jox benn maanaam euh, kii léegi xam nga man moom comme ni ma leen di wax lépp lu may wax rek dafa am fu ma ko teg euh, le juge Maham Diallo ah juge Maham laa leen bëgg indil ah le juge Maham Diallo juge Maham Diallo jéggal leen may la may la may la voilà may leen ma tuuti rek ma ñëw maa ngi ñëw ci yéen may leen ma voilà je vais vous dire ngeen am loo xam ne da ngeen koy comprendre ci band yi nga xam ne ñoom ñoo ñu jiite euh, démb posté naa benn alkaati euh, c'est le lieutenant mbay saadi Diop moo nekk nii le lieutenant Mbaye Sadi Diop ok bàyyi leen kii xel le lieutenant Mbaye Sadi Diop bi ma ko posté ci one million marche ma ne ko qui es dafa ñëw mu bind il est venu sur notre page il a écrit mu ne man maay lieutenant mbay saadi Diop voilà donc euh, dama leen bëgg a wax kuy lieutenant Mbaye Sady Diop tuuti ngeen xam ko beaucoup de policiers et de gendarmes tey wàccee nañu leen wala ñu affecté leen mbay saadi Diop mii moo leen dénoncé auprès de Moussa Fall ak Bokar Moussa ak Bokar Yàgg Bokar Moussa Yàgg Mbaye Sadi Diop mii moo leen dénoncé c'est ki qui est extrêmement dangereux Mbaye Sadi Diop mii moom moo doon liggéey ak Amadou Sall doomu président Macky Sall mu koy recruter ay nervi di ko jox ay fetal muy won nervi yi ni ñuy reyee nit maanaam nu ñuy tiiree balu fetal mbay Sadi Diop mii moo ko def boo leen bàyyee xel 2011 le 23 juin 2011 Mbaye Sadi Diop mii moo soloon tenu tenuyam dem toogi ci télé Sen TV àdduna bi yëpp di ko dégg mu ne ku fi génn ñu rey ñu def la nangam taanu ndey ñu def la nii ku génn maanaam ci réew mi ñu rey la Mbaye Sadio Diop mii la woon moo dem gi ci télé ak tenue mu ne ku génn fii ñu rey la dama bëgg a jox leen euh, benn xibaar xibaar bi c'est important hein xibaar bii dafa important may leen ma ok may leen ma may leen ma xibaar bii ma leen di indil may leen jéggal leen ma tuuti dafa am benn fukki kilo cocaïne boo xam ne xam Diallo ak ki nga xam ne moom mooy maa ngi ñëw may leen vous savez am na fukki kilo cocaïne dix kilos dix kilos rek nag waxuma dix tonnes waxuma une tonne waxuma trois tonnes fukki kilo cocaïne yoo xam ne dañ ko jàpp aéroport aéroport Léopold Sédar Senghor fukki kilo cocaïne dix kilo cocaïne yoo xam ne dañ ko jàpp aéroport Léopold Sédar Senghor fukki kilo cocaïne xam nga kan moo ci nekk yaa Maham Diallo yaa l'adjoint au procureur Abdou Karim Gueye l'adjoint au procureur son adjoint ki nga xam ne moom moo ko moo topp ci moom y a aussi un lieutenant de la police Salimata maa ngi lay ziyaare bu baax a baax waaw yenn saay noonu lay def aji ndaw maa ngi lay ziyaare aji ndaw Pastef suñu sër bu baax maa ngi lay ziyaare kontaan naa ci gis la Maham Diallo bi ñu jàppee fukki kilo cocaïne yi te détail laa leen di indil de waa ji nga xam ne moom lañu ñu jàppee woon fukki kilo yi dañu jël ñaari kilo delloo ko ko jël juróom-ñetti kilo yi ñoom ci seen biir ce qui est extraordinaire est que xam ngeen ne tey drogue bi nga xam ne mi ngi rey ci biir Sénégal di propager c'est les gendarmes et les policiers qui vendent cette drogue à nos à nos citoyens Sénégal rek la loolu am ñun senegal yàgg nañ leen wax ñu ne leen Macky Sall boo leen ma dégloon ñëwaat ma ñëwaat ci ma ne leen c'est un chef de cartel xam nga drogue cartel moy lan mooy ñoom Noriega ñoom euh, euh, El Chapo ak euh, ki nekkoon Colombie ñooñu ay drogue cartel lañu c'est un cartel de drogue ñoom duñu mafia ñooñu bi ñu defee loolu société bi ne leen leen rek express yem leen ci express société bi express lay jeexee express xam nga lu Pablo Escobar exactement xam nga lan la gaa def bi ñu jàppee drogue dealer bi léegi dañ ko yóbbu ci biir waxtaan ak doyen des juges waxtaan ak procureur bi bi ñu waxtaanee ba pare ñu delloo booy bi ñaari kilo drogue parce que dafa amoon intervention ñu bàyyi ko mu dem ñu ne léegi Euh, nañu wax ne li ñu jàpp ci boy bi du drogue quoi maanaam sunguf lawoon woon bi ñu demee vérifier ko ci biir a biir ils ont trouvé que c'est pas de la drogue un juge Maham Diallo un procureur et un gendarme et un policier sont mêlés dans l'affaire de drogue je vous donnerai tous les noms démb dama ko décortiquer rek ci benn poste ndax fan yi dama fas yéene ne leen dinaa ñëw à chaque jour que Dieu fait chaque jour bis bu ne bu ci yàlla àndee ma indil leen tappale yi nga xam ne moom la bandi yi def ci suñu réew chaque jour que Dieu fait dinaa leen indil ab tappale bu ñu def Macky Sall gars yi yan laay waxal il faut ñu taper sur la table que ñu am ay élection balaa Macky Sall di génn réew mi Macky Sall dafa bëggul ay élection Sénégal fekk ko ci biir réew mi dafa bëgg a daw il veut s'enfuir il veut prendre la fuite Macky li mu bëgg a def yëpp mais dem élection moo ko gën a yomb lan moo tax Macky bëggul ñu teg élection ci kanamam laaj leen ko seen bopp Macky moo bëggul élection Sénégal am fekk ko ci biir réew mi parce que ba léegi comme ni ma leen ko waxee mënul accepter passation de service ñëw mu war a nuyoonte ak do ak jomaay war a xool son ko ci biir bët ne au revoir gars yi ne ko ah Macky ah d'accord au revoir mais avant on a des questions déclaration de patrimoine et on veut que tu sois au service des Sénégalais pour quelques jours parce que dañ la bëgg a laaj ay question gars yi plainte collectif plainte collectif boo xam ne ñu ngi koy woote pour ñëpp plainte Maimouna Ndour Faye euh, Maimouna Ndour ñëpp nañ ko plainte am na sax loo xam ne bëggoon naa koo def tey pour rek xamal ko ne ñun xam nañ ko doomeeraam ji faram bi nekk maanaam moom Maimouna Ndour borom jëkkër officier de l'armée jëkkëram officier armée la ok laaj leen Maimouna Ndour Faye je serai très bien précis société bi tudd Fisalis Fisalis P H Y s société bi tudd Fisalis le DG de la société qui paye un appartement pour elle dans un hôtel pour un an moom hôtel ba dafa am suite pour un an un DG d'une société Fisalis benn couleur plus plus précisément boo xam ne moom may a Ndour ba mu seqee ak moom sax paa bi fa mu dem di ko waxtaane nee na il a failli perdre la tête ndax ndaw si bi mu sëggee ci moom di ko sexal Ali Kalajam donc may a Ndour li ñu xam dafa bari xam nga ñun du ñu bëgg rek di accuser dañuy accuser ñu indi nit ki tegal la ko sur la table wax sénégalais yi ne yow doom yaram nga doo référence doom modèle dama façon yéene ne loolu dootuma ci duggati waaye comme bandi nga te doon nit moo tax ma ne tey ma def lépp lu bay def génnee say say njombe adduna bi xam lu tax nga yor sa làmmiñ di ñu sonal société immobilière foo tuddee société immobilière tudd suuf suufu Sénégal bi yëpp njuuj njaañ ngeen ko laaj leen may Maimouna Ndour Faye ne ko dañ la ne Tunkara a bien di nee na te eh eh eh attention <coughs> bàyyi leen gars yi di leen jox ay excuse parce que tem-tem ñu ne la ñu nekk bitim réew waaw di wax ñooñu bàyyi leen foofu ñu wax déedéet bitim réew aussi am na diffamation man nga ñëw toppee nit diffamation bitim réew mu fay la ay millions maanaam tey man ngaa ñëw toppee Tounkara diffamation mu fay la sax cinq milliards donc ñëwal Maimouna Ndour comme ça ma mën a génnee preuve yi teg ko sur la table adduna bi yëpp gis waaw wala nga wax safar bi mu ñëw xam nga tudd naa société bi Fisalis te Amérique am na avocat donc bu leen dellu ginnaaw ah. Je vous dis que on va vous un à un waxoon naa leen fi Cheikh Yérim mu bëgguma mën a mën a je m'excuse waxoon naa leen fi Cheikh Yérim Seck ak takku suufam ak ngénte li ngénte loolu moo tas sëyam ak journaliste Astu Njoon parce que Astu Njoon bi mu déggee loolu rek daf ñu contacter si saa si ne dafa bëgg a confirmer rek ne loolu ñu wax ci Cheikh mu Seck dëgg la bañ ko confirmer bañ ba laataa ñu koy confirmer sax moom gàddu na ay bagaasam dem waaye bañ ko confirmer dafa ñaan baat te delluwu ci ginnaaw donc Maimouna Ndour yow it pareel sa jëkkër officier bi dina la fase parce que danga am jëkkër am far far boo xam ne comme ni ma ko waxee tey daf la fayal hôtel presque un an te nee na gaaw nga ci utiliser say tuñ moom say tuñ moom un deux trois sax nga donc moo tax sa gémmiñ ngi rattax nga ñaaw làmmiñ ñaaw làmmiñ bi nekk ci yow te dara jomb la dara jomb la lu la neex ngay wax nu la neexee yow nga jàpp ay victime ay nit yoo xam ne dañ leen jàpp tëj leen kaso malgré bi ñu reyee seeni ay xarit rey seeni ay am di jàmm am na ay jeunes yoo xam ne dañ may woo ñu ne ma Tounkara quand on tuait mon nami il était près de moi. On l'a tiré à balles réelles, on l'a tué. yow doomi xaram bi amuloo dara loo def nga ñëw ne nit ñooñu ñoo rey nit ñi nekkoon ci kaso bi ñoom ñoo rey ñii nga xam ne vraiment ñoo génn àddina ci Sénégal ci manifestation te mu leer la ne yow sa jëkkër officier la xam na exactement li xew ci senegal xam nga lépp tu connais tout xam nga lépp léegi yow nga génn nga bëgg a accuser ay doomu sénégalais yu set wicc yu deful waxuñu te dinaa la jox beneen affaire euh, am ni Moustapha am di maa ngi lay ziyaara il faut ma woowaat la ne dama nekk en direct voilà merci donc euh, gars yi ma ñëw ci beneen scandale Maimouna nduur doomu xaram bi léegi boo bëgg boo boo bëggee fàtte fàttelu ne leen ko sa far bi ci société Fisalis la nekk paatu couleur la pour muy leer société Fisalis voilà paa bi ba nga ko sexalee samba àllaar bi rek dafa jommi nee na laa ilaaha muhammad rasulullah hakku ndeme àllaar ko faalda foofu mi barak voilà yow xam nga ñun xam nañu génnal weddi ko ñu génn tegaat ko ci yoon loolu benn la léegi ñun ñëpp toog nañu am na lu ñu dégg loo xam ne umpatul kenn dangeen doon nëbbatu rek Al Jazeera génn na xam nga Al Jazeera lu mu wax nee ndekete dama leen di liiral texte bi yëpp chers compatriotes non euh, ok dama leen di liiral texte su Al bi parce que dafa ne grosse révélation le gars si impliqué dans les répressions violentes des manifestations preuve par image Dans une vidéo, on voit des membres du personnel de sécurité à bord du même type de véhicule blindé que l'Union européenne a acheté pour le gaz 6 Sénégal tiré des gaz lacrymogènes sur une caravane protestation organisée par Ousmane Sonko en mai dernier. Al Jazeera confirme que l'incident est produit dans le village de Mampating, au sud du Sénégal, aux environs de 50 kilomètres de Kolda, dans la région de la Casamance, les unités d'élite, ces unités d'élite étaient financées par l'Union européenne, étaient plutôt censées à être basées dans les zones frontalières du Sénégal, avec le Mali, pour lutter contre la criminalité transfrontalière maanaam Union européenne dafa jël xaalis jox ko benn unité bu élite ne leen ñu ñu sàmmal leen frontière bi ak Mali pour conflit yi bu mu tuuru biir Sénégal unité yooyu Union européenne moo leen financé léegi ñoom lan la ñu def unité yooyu ñoo dem di attaquer le président Ousmane Sonko <coughs> loolu moo tax yéen gisu leen ne ñu bari ñoo am problème te lii c'est confirmé par Al Jazeera Al Jazeera moo ko def mu ne le gouvernement sénégalais a déployé une unité spéciale de lutte contre le terrorisme unité spéciale boo xam ne dañ ko créer pour mu lutter contre le terrorisme est-ce que vous m'écoutez waaye lan la ñu def est formé et financé par l'Union européenne pour réprimer violemment les restant manifestation léegi Macky Sall lan la def dafa utiliser ñooñu pour di réprimer manifestation yi ñu dem jëli ay blindé Europe jëli ay ay euh, jàpp ay agents spécial entraîné leen pour ñu xool frontières yi ci mbirum terrorisme ñoom ñu jël loolu ñu utiliser ko contre Ousmane Sonko ak Pastef c'est le GACI le groupe d'action rapide de surveillance et de l'intervention financée par l'Union européenne qui a été utilisée pour écraser violemment les manifestations mi ngi nii ñu ngi nii groupe baa ngi nii ñu ngi nii di tiire kenn mënul weddi lii weddi gis bokku ci ñu ngi dem ci village u Mampati di fa tiire ay lacrymogène dans un village dans un petit village o environs de Kolda village u ñu dem fa parce que Ousmane son nga fa woon ñu dem fa di tiire ay gaz lacrymogène di réprimer bépp manifestation bu am ci réew mi et pourtant Union européenne moo leen financé Macky Sall jël leen utiliser leen pour xeex sénégalais yi gars yi maa ngi euh, massawu les détenus voilà maa ngi leen di massawu euh, ñu bari ci ñoom gis naa leen fan yii yëpp suñu xarit yi ñëpp a ngi génn macha allah yal na leen yàlla delloowaat ci seen njaboot yi ci jàmm ak salaam woya falaat leen liggéey bi incha allah donc euh, dañu nekk ci benn euh, itte bu ndaw rek xam naa bu soobee yàlla bu ko temps bi permettre raté dinaa ñëwaat ci kanam pour gën a yeggali liggéey bi maa ngi leen di sant di leen gërëm waa salaamualeykum wa rahmatulah